ñenn ñoo xam ne Tahirou Sarr fan yi ñu génn da leen a yebal ci njabootug Magor Diagne mi nga xam ne ñoom moom suuf sa ngir ñu négocier Tahirou Sarr proposé leen lu toll ci dix milliards waaye nag njaboot gi ñoom dañoo lànk kandaare lànk ba tëdd sa naaj wa ñoom nee nañu quatre-vingt-quatorze milliards la ñuy wax Tahirou Sarr di leen wax waxi dix milliards ñenn njaboot gi jàpp nañu ne Tahirou Sarr maanaam double gelée sa yéen kaa gi ne na en tout cas li am ba de sall mbirum quatre-vingt-quatorze milliards yi na seeq waxtaan ak ki yor kàddu ko njabootu ko Magour jaañ mi moom suuf si ñoom ne nañu Tahirou sara dafa mel ni nag ay mbiram leerul ndax ñaari tur la ma fenn fi Seydou sara fenn fi Tahirou Sarr la nga xam ne moom la leen proposé ñoom dañoo lank kandaare jamono ji nag li nga xam ne moom la ñuy sàkko maanaam suuf si nga xam ne kenn dëkk gu sa ñu daal leen koy jox te suuf si nga xam ne jot nañu sa dëkk maanaam ñu daal di koy lijjanti yéen kaay gi di Dakar Times xëy wax ci lu jëm ci wàllum élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak révision liste électorale yi journal bi nee na waa si ba léegi ñoom ñooy gérer li nga xam ne mooy sunu fichier électoral bi loolee doy na waar yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa ñoom Abdoul Mbaye congrès de la renaissance démocratique ñuy wax ci lu jëm ci woppi coronavirus ci ñoom nag li nga xam ne moom la ñu gis mooy Abdoulaye Diouf Sarr dafa war a tekki ndombal tànkam wala ñu daal di koy dàq moom mi nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci wàllu wér gi yaram ke ñoom Abdou Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo ak Thierno Alassane Sall nee na ñu Abdoulaye Diouf Sarr jamono ji maanaam dafa tële dafa incompétent mënul pour puusul paasula te nag li nga xam ne mooy coronavirus ma ngi jàbba jónge ci réew mi te Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllu woowu maanaam wane na ak tëleem Abdoulaye Diouf Sarr wane na ak tëleem yéen kaay gi du l'Observateur ñu xëy fekk fa ñi nga xam ne rëcc nañ ci ñetteelu vague bi te nekkoon réanimation xëy di nettali lu garaaw a garaaw ci journal bi am na ko ci tudd Fatou Ndiaye nee na am na juróom-ñaari nit ñoo xam ne maanaam ci wetam la ñu ñàkkee seen bakkan am na ku ci tudd Aïssatou Gueye moom daat nay wax ne toll na jamono joo xam ko woona li nga xamante ni nag maanaam mooy noyyem gi fatoon na ba nga xam ne jàppoon ne daal déegi yegg si na yéene kaay gi de la sa xëy duñu xibaar naan ñu ministre maître Malick Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi coronavirus daan na koy daal ñetteelu vague bi waaye nag li nga xam ne moo yéeme ci mbir mi nar a yàq lu bare bare ci campagne vaccination bi mooy maître Malick Sall mi ñàkk woon na ba pare yéene kaay gi nee na du maître Malick Sall rek ndax am na ñeneen ñoo xamante ni ñàkk woon nañu amee coronavirus bi ku si mel ni Pape Samou gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa professeur Moussa Seydi nee na communication bi nga xam ne moom la ñu waroon a def ci vaccin bi maanaam communication boobee moo doyu la yéen kaay gi di évidence nee na en tout cas li am ba nag feebar na yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu série bii di infidèle ñi nga xam ne ñooy wax sénéra daan nañuy tere ñetteelu session bi la nga xamante ni moo ko waral mooy ONG Jamra ñoom Mame Makhtar Gueye ñoo leen porté woon plainte ginnaaw nag maanaam ay image yu doy waar doy waar yoo xam ne fësaloon nañ ko yéen kaay gi libération ak laas las xëy duñu xibaar naan ñu baccalauréat bi niki démb commencé na good fine ak coronavirus bi mbooleem li nga xam ne ay matukaay la jël nañu ko waaye nag lu jëm ci wàllum triche gi maanaam ma ngi mel ne tulleeg màlle ndax bëri na épreuve yoo xam ne dañu ko corriger ca diiwaanu Pekes muy jàbba jonge maanaam ci benn ab groupe WhatsApp gendarmerie teg na loxo ñi nga xam ne ñoo doon tricher ca diiwaanu Pekes ca diiwaanu Géejawaay am na ñaari candidat yoo xamante ni teg nañu leen loxo ñooñee dañu doon tricher yéen a kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Sosa Ndiaye mi nga xam ne mu jiite office du bac nee na résultat SMS la ñuy envoyé ñi nga xam ne ñooy candidat yi yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar nan ñu étudiants yi nga xam ne fan yi ñu génn dàq nañu leen ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daan nañuy sumb li nga xam ne mooy ab grève xiif la yéen a kaay gi di sunu lambo nee na troisième vague bi daan nay daaneel li nga xam ne mooy lamb ñi nga xam ne nag ñoo séq lamb ji ñoom janoo